final bi ñu fas waxtane ben événement bu am solo bu ñu wara amal avant cela may dugg ci waxtane bi dama koy baye mu nuyo sëñ bi soñoo lay dalal ci suñu plateau matinal dalal jam ñu baye la nga nuyo ak mbokk téléspectateur TV alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi din jullit yi mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziara waaye tamit euh, di am kontante bu baax bokk ak yéen plateau bi bu baax macha allah surtout ci suñu sit bi nga xam ne ne Sénégal la fi nekkal askan wi la fi nekkal euh, njaboot gi la fi nekkal pénc bi la fi nekkal mooy TS TV euh, waaye tamit noonu la ñuy ziare suñu xalif alhaaj Ceerno Ousmane Mouhamadou Iya nga xam ne ni moom moo ñu fi yebal ci ndigalam lañ fi ñëwee ak ay rakkam ay njabootu kër gi yëpp tabaarakallaahu ku mel ni rakkam Thierno Ahmadou Mamouraya mhm. Thierno Aliou Djibayr ak euh, njaboot gi yëpp waa Galle Koset yëpp daal ci tënk mhm. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara barakallah macha allah am na solo bu baax a baax <coughs> euh, en tout cas am nañu mbégte tey euh, dalal la ci suñu plateau mhm. tey nag nga ñëw fii nga am benn événement bu ngeen di dëkkmal le 9 août. di ziara annuelle Thierno alfa Ousmane Sow. 60 euh, e euh, édition mhm. donc euh, yàgg na ko mhm. té la fi andi pour ñu waxtaan ci téléspectateurs également wax ñu mhm. événement bobu mag programme naka lay wa jërëjëf ñu ngi am bu baax ak yow événement bu am solo bobu di bu ñu xel yépp dem ci di mamal nga xam ne ne euh, judduwul ruumde ganewul àddina ruumde boo xoolee dafa xawa nurook nuroog Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moom boo xoolee makkatal mukarrama la ganee àddina waaye mission am lépp medinatul munawwara li ci ëpp medinatul munawwara la ko yeggale maam Alpha Ousmane ganewul àddina ruumde waaye bi mu demee ba tollu fenn fi la waa Roum def délégation ñu def réunion ñu ne nag jaadu na jëli nitu yàlla bu tudd Alpha Ousmane ñu ñëw indi ko ci dëkk bi ngir mu dimbali ñu ci diini bi moo tax woykat bi mu naan la quduumahoo fii rumde hiina isin wajtamaawu wa taxaddasu taqdiimahoo fil masjid mamal Alpha Ousmane waa rumde ñoo waxtaan ñu ne nañ ko jëli seen mbokk la seen deret la seen lépp la waaye seen mbokk la ci diini bi ñu jëli ko indi ko Rumde mooy dëkk boobu nga xam ne ne tey foofu la ñuy def ziara bi la 9 août incha allah mooy ziara boo xam ne ziara annuelle euh, mooy ziara général boo xam ne famille bi yépp ñoo fay dajati dëkk boobu di région de Louga mhm. ci région de Louga la bokk mhm. Euh, arrondissement Kokki. Kokki département Louga. département Louga. Mhm. Euh, tabaarakallahu commune Guet Art. Mhm. Euh, foofu la Roum di placé wu. Mhm. waaye muy dëkk boo xam ne dëkku diine la. waaye tamit diineel moo fa yàgg. ziara bi ren lay am soixantième édition. nga xam ne ni ziara boobu yàgg na. boo xoolee tamit li gën a yéem. maam Alpha Ousmane. dund na fii ba génn àddina deful ziyaara bi ziyaara bi ci génnaawam lañ ko sosee waaye benn sëtam buñ ko tuddee woon mooy Ousmane mu dëkk ndaa bi moom moo tabaarakallahu ci moom la sosoo ci jamono Ceerno Jibayru boobu Jibayru Ceerno Jibayru ay yaa moo nekkoon xalifa gàlli ko set mm-hmm. yàlla dogal ne Maam Alfa Ousmane dund na fi waye mom dafa deddu won adina bi mu room rumde ci dekk bu tedd boobu limu ñëkk wax moy ñett la bëgg ci dekk bi ñu ne ko lanang lan mu ne leen utal leen ma fuma ma defee amadarisu qabla al masajid yent yalla muhammad neene dekk bu bëggé avancé bala ngeen di samp jak na ngeen defar daara ba paré mu ne ñu ne ko lutax mu ne bu ngeen défaré jak ba mu rafet te xam-xam amul dangoon koy mujj tëj uti xam-xam xoon di ngeen a war a njëkkee xam-xam ba pare mam Alpha Ousmane mu njëkkee ubbi daara daara la njëkkee daara boobu mu nga fa ba léegi taal la am nañu croix 2000 mais ba léegi dañuy taxañ di taal te doom boobu li muy faj macha allah mhm. secret bu rëy la mhm. ndaxte mag ñi lu ñu def rek dafa am lu tax. biñ ko mayee fi mu def daar mu ne leen tool ndaxte gor balaa moo mun a téye dignité am personnalité am day liggéey ñu utal ko tool ñu ne ko jàkk wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahad jàkk yàllaa ko moom liggéey yow yaa fay liggéey loo teddee loo suturalee sa njaboot daara ji fa lay jàngalee njaboot gi ak tabaarakallaahu dëkk yi waroon ruumti kon nga yëg ne ni nitu yàlla boobu la defal ziar di ko fàttaliku di ko ñaanal yal na yàlla tabaarakallahu dolli tabaarakallahu leeram ci euh, ci réew mi ya amin en tout cas mu nekk lu am solo dëkku diine doyen comme mu ko waxee rumde euh, nekk fee ca diwaanu Louga hmm. euh, mu nekk lu am solo li mu wax rumde waaw moom nag mu nekk ci tund woo xam ni foofu alxuraan yàgg fa quoi alxuraan yàgg na parce que bu ñu waxee kokki mhm. waaw xam nga te yaa ngi koy wax sànq mhm. ne ci secteur boobu la nekk mhm. foofu daara ji lan lan mooy dayo gi tey parce que fa ko xalif bi bàyyi woon foofu la nekk ba léegi wala yokk na wala ah jërëjëf fa tabaarakallaahu ñu ngi sant yàlla bu baax ci question bu am solo boobu daara jooju mu nga fa ba léegi te li ci gën a yéemi taalibe yi li ñuy bari bari du ñu yelwaani ki fa nekk moo leen di jël à charge tey xalifa bi fa nekk moo jël à charge lépp daara jaa nga fa di dox ni mu doon doxee xeetu xam-xam yi ñu doon jàngee foofu ba léegi xeetu xam-xam yooyu lañ fa doon jàngee xoon mën nañu wax ne ni. li Mame Alpha Ousmane nitu yàlla boobu euh, xalaat ak yéene bi mu amoon ci dëkk boobu yéene boobu mu nga fa ba léegi mhm. tabaarakallah barke barke waaye sababu taalibe yi mooy lan ci daara ji ni muy doxee parce que euh, daara yombul mhm. da da nga yor ay xale mhm. xale xale di di dina lekk dina am fu mu tëdd dina matériel bi ñuy jàngee matériel didactique maanaam ak yooyu yëpp léegi yéen a koy jël en charge wala da ngeen am ñu leen di dimbali ci njaboot gi wala nguur gi am na fu mu leen féete wala fan la ressources yi di jógee maanaam. jërëjëf fa tabaarakallaahu euh, li nga wax lu am solo la waaye nag man kaana lillaahi kaana lillaahu la yonte yàlla Muhammad nee na ku nekkal yàlla yàlla nekkal. Mhm. daara jooju mun nañu wax ne ne yàllaa ko téyal boppam du benn président bu ci dugal loxo waaye tamit. ñu ngi ci sant yàlla bu baax daara jaa ngi dox bu bu baax xale yaa ngi jàng ni mu waree ñu ngi am xam-xam ni mu waree waaye tamit ñu ngi leen yar ni mu waree la ëpp solo ndaxte mam Serigne Touba ne euh, laysa al yatimu man maata waaliduhu inna al mam Serigne Touba nee ne du jirim koo xam ne ne ay waajuram dañoo génn àddina kii jirim mooy koo xam ne amul xam-xam amul teggin waaye ñaar yooyu yëpp fexe nañu ba dugal ko ci daara ji njàng baa ngi jaar yoon waaye tamit tabaarakallaahu yar bi naka noonu li ci des ni ñuy dundee yàlla mu ngi ñuy wërsëkkal li taalib yi di dundee tabaarakallaahu incha allah mu ngi leen di wërsëgale waaye mais di du jinne yi ñooy indi affaire yi am na liggéey yoo leen di liggéey xaalis di ñëw xëy na ci tool yi wala muy jóge feneen ci ci loolu la ñuy wax waxuñu na nguur gi mu ngi ndax mu ngi leen déedéet mm-hmm. dañ ni fan la alal ji nga xamni ni yor daara ji parce que yalla tamit dang koy layal da nga nan ma ngi def commerce yalla mo ngi koy barkel ma ngi tool yi ngi xaliss parce que daara sax non la wara dundé dunde wan bi ñuy wax jaadu wul hmm, jerejef jaadu wul wa li nga wax xam nga waxon na la ci bir wax mamal fausman bi mu ñewé rundi ñett yi la fa ñëk wax la fa sab ko mooy bi muy béyé mhm. tol ba nga fa ba légui yara la tuddu waali yara la toolu mam Alpha Ousmane tudd ba léegi tool baa nga fa tabaarakallaahu euh, dinañu liggéey waaye liggéey bi taxul mu jël temps bi ñu war a jàngee waaye tamit li ñuy béyee walla li ñuy liggéeyee mënul leen a dundal at c'est impossible mënul nekk waaye tamit ñu ngi ci sant xalifa bi bu baax ndaxte léppam moko jël asars daara ji tabax nako defaraat nako nga xamne ne te li gina a moy beralu len ci wallahi wal kitab al azim ci média lay wax amna ño xamne ñing koy seta khalifa bi fi muy agné fofu lo talib yi di agné mo jaatu wallahi wal kitaabil azim alxalifa alxaaji Ceerno Ousmane Mouhamadou Aya cin biñ koy yekkal mu añee cin boobu lañuy ñuy tibbalee taalibe yi muy njàngale bu rëy mhm. kilifa bu ne war na faaro yi mhm. waaye nañ ma toggal lii nañu toggal taalibe yi lee mu ne moom jàngul loolu xamul loolu bokk ci tekki mhm. muy lu yéen boo ñëwee Rumdi di nga xam xam nga bu nee ji bu nee njirim mooy ki amul xam-xam ki amul teggin mooy ki ñu yarul ndax loolu dañu jàpp ne xëy na waajur moo ko war a def ci doomam kon ka ko cay def mooy woy surtout kay ci def xam-xam ak teggin yooyu mooy mooy juru ndongo yooyu mm-hmm. ñoom ci yan at ba yan at lañuy nekk ci daara ji waaw euh, loolu moom sans euh, ci xale bi rek ni xelam mel ndaxte léeg-léeg nga am ku neex xel lool mm-hmm. kooku tabaarakallah mun na faa jaar rek mu nekk lu gaaw waaye bu dee koo xam ne kii xelam dafa naqari. Mhm. tabaarakallaahu di naqari jàng a yéex. waaw ah. day gën a yéex mais loolu moom vraiment. parce que yàgg fa tamit du doon lu bon de. voilà mhm. yàgg ci yetu nitu yàlla. Mhm. waaw waaw tabaarak ah, day mais ku ci mel ni ku ci mel ni maam Alpha est-ce bindal nañ ko livre boo xamante ni dina permettre xale yi nga xamante ni wala génération. future bi mën koo xam parce que danoo nemmeeku ni. Euh, daanaka génération yu bari sunu maam yu bari dañ leen a te ñu doonoon ay nitu yàlla doonoon ay borom xam-xam seen jaar-jaar yépp doon jàngale est-ce que tey yéen a ngi xalaat bindal ko livre boo xamante ni àdduna mën nay dox bañ koy jàngale ci école yi surtout waaw maam Alpha Ousmane bind nañ ci moom ci dundam ni mu doon dundee ak ni mu meloon yépp am na luñ ci bind ci arab ci arab mais traduire nañ ko ci en français Mhm. nga xam ne ni am na ñoo xam ne ci njaboot gi français la ñu jàng mhm. mu mun a leen a permettre ñu xam seen maam mhm. am na ñoo xam ne arab la jàng mun nañoo jël loolu mu permettre ñu xam seen maam waaye luñ la mun a tënkal ci nitu yàlla boobu rek nit ku nit ku xamoon lan mooy valeur nit nit koo xam ne kii dafa ñëwoon pour jàppale jullitu yàlla yi ci xam-xam ci yar leen ci dimbali leen ci seen dundin ak seen nekkin ci de ak ci Sénégal fépp macha mhm. parce que moom Mame Alpha Ousmane bokk na ci connais, euh, ñi fi njëkkoon année bi mu génn euh, bu ñu adina 1838 mhm. euh, la 1838 la Mame Alpha Ousmane ganee mhm. mu am 17 ans jël tariqatu tijaaniya Yalla dogal na ni jang na xetu xam-xam yu bari ba dese ko tafsir mu ñew ci dekk bu wetu ruumde la fofu la tafsiré way tamit 84 ans la dund mom mamal faus mm-hmm. nga xam ne ne moom dundam pertul mm-hmm. way tamit li ci gina a ay domam yépp de leena jangal alquran bañu dégg bi mu dégg alpha alpha grade la woon alpha Ousmane alpha jamono jooju boo ko déggee ci nit mooy koo xam ne ne xeetu xam-xam yépp xam na ko mhm. loo ko laaj ci ci ci xam-xam dina la mun a tontu mais mu fexe li ne ci moom mu defaat ko ci njabootam mhm. moo taxit ay njabootam yépp ay alpha la woon mu boole ci nag mu jël leen ñoom ñëpp ni doom neexee ñu ci ëpp taaw yi yépp di leen génneewoon ku ne am fu la yóbbu sampal la fa daara mu naan la jàngaleel wooteel waaye bul wone sa bopp wone la yàlla ak yont yàlla muhammad lu am sololo la loolu la Mame Alpha Ousmane dundee woon moo taxit ziyaara bi mhm. ci gannaawam lañ ko sosee mhm. léegi ci mhm. euh, nga xam ne lu yéeme la benn sëtam buñ ko tuddee la Euh, dafa amoon benn doomam xam nga taawam Alpha Ahmad la woon waaye ki toppoon ci moom euh, mu ngi dëkkoon tabaarakallaahu euh, côté Saint-Louis Alpha Hamad Alpha Hamad moo jur ki sos ziyaara bi Alpha Hamad doomu Alpha Ousmane la Alpha Hamad jur doom am doom mu tuddee ko baayam mu naan ko Ousmane léegi Ousmane boobu moo màgg yàlla dogal mu dem mag ziyaari ji aji ji fa la ko mam Alpha Ousmane feeñoo mam Alpha Ousmane génn na àddina ba am 42 ans xawma ma 40 42 ci biir suuf ñu soog a sos ziyaari bi ci gannaaw turandoom boobu di sëtam di waajur Thierno Adama Dialik ñu ngi koy ziyaari di ziyaari njaboot gi yépp mm-hmm. Euh, Alpha Ousmane mu ne ko Ousmane dellool njaboot gi ruum di dane ko Ousmane Ousmane ba muy ñetti yoon mu ne ko dellool njaboot gi ruum di mu ñibbi si mag mu nettali ko benn góor mu ne ko euh, ah loolu de yéeme na mu tawat tawat bu metti mu jóge foofu ñëw ci waajuram bi Thierno Jubayru boobu Thierno Jubayru moo nekk xalifa mhm. ndaabe la dëkkoon mhm. mu ñëw mu ne Thierno Djibar man de gis naa sama turandoo nee ma naa delloo njaboot gi ruum de waaye man xaw ma nan laay delloowee njaboot gi ruum mhm. mu ne loolu de lu yéeme la xemtaan la de mu ne ko waaye nag dama lay ñaan ndigal nga may ma may ñëw di ziar moom ci première bi ci armeer yi la doon yem ziara nitu yàlla boobu ziare maamam ñaanal ko ñaanal ñi fa tëdd ñëpp mu delloowaat ñibbi mhm. ba muy troisième fois Thierno Djibar mu nekk ñaan bo ñëwatee nga yegg kër lo fa fekk ci teraanga ñu bokk ko très bien euh, Thierno Aliou ju Bayru boobu sax mom moy imam ratib bu Rumde mhm, très bien léegi ñu ñëw euh, si euh, événement bi le 9 wa journée bi voilà muy ziara annuelle bi lan moo cay xew programme bi gis naa aussi ngeen tuddé ko ngeen parrainé ko maire Walalde moy département moy département Podor bi mom ngeen ko parrainé mhm. ceerno moussa Wajir. wa Musa moussa sowa uh-huh. <laughs> Musa moussa sowa moussa sow waalalde waawa ziyaare bi bu ñu uh-huh. li ñuy njëkk def uh-huh. moy jang alquran tout à fait te yonte Yalla muhammad nee ne laa tajaalu buyutakum Ndax te inna seytaani yanfiru bayti lazi tuqra'u fihi suratul baqara yonte Yalla muhammad nee ne bu leen jël dekk way ngeen koy def armeer <coughs> dëkkuwaay bu ñuy jàngee suratu baqar seytaane dafay daw moo tax suba teel bi kaamil alquran lañ koy ubbee jàng alquran def ay zikku def ay def ay istixfaar ba pare tabaarakallaahu ñu waajal jumaa ji mhm. parce que ah, euh, chaque année ci ajjuma lañ koy def ndaxte taalib yi ñoo ko sàkkoon ngir ñu mun a ñëw fekke ci jumaa ji euh, dinañu def bayaan mhm. balaa imaam di ñëw xalifa bi mooy joxe tem mu ne thème bii nañ ko defee bayaan yée ci nit ñi balaa imaam di ñëw bu ñu defee bayaan ba pare imaam mooy ñëw bu ñu jullee jumaa ba pare dañuy dem armeer ya def ziyaare ji ndaxte loolu moo sosoon ziyaara bi xoon duñ ko fàtte bu ñu jullee ajjuma ba sëlmal balaa ñuy delluwaat ci kër ya dañuy def direct ci armeer yi mhm. ziyaare ji nitu yàlla boobu bu ñu ñibbisee nag soog a xéewlu bu ñu paree tabaarakallaahu euh, waajal asrul juma mooy xadaratul juma euh, bu ñu paree ci xadaratul juma bi euh, jublu ci cérémonie officielle bi léegi bu paree moom it guddi gi moom conférencier bi soog a dugg ci guddi bi ba bët set lii mooy programme ziara bi barak. kon mbokk séeréer yi dégg ngeen pël yi. waaw am na añ. xëy <laughs> amul ndékki amul reer. waaye kon boo leen fay dem. am na reer de. am na reer am officielle bu jeexee tudd ko de. waaye xam nga cérémonie officielle souvent bu jeexee après mu ne xéwal foofu la ñuy dugal. reer yi ah, léegi nag bu ñu paree kon kon kon séeréer yi pare leen pour dem ca ca xew ma. bu amu fa kon kon am. <laughs> foofu ay gàtt fay dem soos bu baree fay ne pël yi bu ñu leen tëb affaire yi ba ngeen foog ni bagage yi du mat day mat sëkk. kon bu amee xew day rey gàtt. Oh, waa ñoom moom teraanga moom dolli sutura yi. ah bii te bés bu mel noonu euh, ànd da ciy am solo. tout lool ah. waaw waaw pare pare nañu aussi. pour pour accompagner leen. waaw ci ak yéen déggoo jël image yi yëpp ci journée bi. Mm-hmm. jël yëpp waaw. vraiment comme ni ñuy wax site bi suñu site la. Mm-hmm. pare ko euh, waxoon naa la ko keroog. exactement incha allah dinañ ko jël. Mm-hmm. def ko suñu site. parce que aussi lu euh, lépp loo xam ne ne. Euh, palaasu liggéeyukaay la rek. nit ñëpp ñoo ci war a ñëw jàpp ci. ndaxte tabaarakallaahu day dimbali. Mm-hmm. Euh, li ci des noonu la ñuy sante euh, commité organisation bi fa nekk. mooy jamaatu ahbaabu Seyd Al Fawzana ñoom it ñu am pas-pas lañu. Mm-hmm. ñoo xam ne ñi ay xale lañu. waaye ci seeni activité. Mm-hmm. seeni liggéey seeni xalaat boo ko xoolee dangay wax ne na macha allah. président bi Thierno Al Hassan la. Mhm. moom mu ngi Dakar. mu ngi Dakar. Mhm. moom fa la nekk waaye muy nit ku am pas-pas. Mhm. ànd ak ñim ko àndal ñëpp ñi mu sëkkal comité bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax na ne bés bi mu ngi noonu. Euh, luñ ko doon programmé nañu yokk. ndaxte am gan dafa diis. Euh, loo loo am rek walla loo def rek xeebal. te yonte yalla muhammad nee man kana yuminu billahi wal yawmil Akhir, fal yuqrim dayfu tey ñu dee de kon Allah. dootul doy tabaarakallah Allah. mu ngi nonu 9h eh, lay euh donc eh, waxtaan bi de ngeen ko def ba ci eh, bët mhm. fajar gi nonu ñu jeexale programme en tout cas mu nek programme bu am solo mhm. bu riche di ñaar rek ñu yegg ci jamm euh aussi bëggoon ba très rapidement ñu ñuy euh daara bi koo xamante ni bëgg na andi fa doomam euh, naka lay def pour mu fa andi doomam ci seen daara bi foofu. waa jërëjëf euh, daara jaa nga fa. Mhm. yàlla la fa nekkal. Mhm. Euh, waxuñu kii mooy ñëw kii du ñëw. Mhm. jullit bu yéene sa doom xam-xam. daara Alpha Ousmane mu nga fa. daara bi daara ñëpp la. ñëpp a ci yem ñëpp a ci tolloo cër. ki dëkk ruum ak ku dëkk ruum ci yem. ndaxte lu tax. xam-xam moo ko tax a jóg te góor gi fa nekkoon te ubbi woon ko am na ñu doon jóge Mali am ñi doon jóge Guinée am ñi doon jóge ci sous-région bi di ñëw di fa jàngee xoon ci biir Sénégal waxaale wuñ ko kon tabarakallah daara jaa ngi noonu daal ñëpp la fi nekkal eh, kan, ñëpp la fi nekkal tabarakallah en tout cas ñu ngi lay jajeufal bu baaxa baax di ñaan yalla mu yok leeru amin alfa usman maam mhm. alfa usman yalla yalla yok leeram taas amin ya rabbal alamin amin parce que tour yi rek dafa dal xel mhm. Mhm. xam nga xam nga usman ak eh, martabat yow usman ci yettu sang bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam usman digganteem mak alquran ma sha Allah waxatu ba sax jikko ya ndax jikko ya xeyna motax moo tax indi borom ñaari leer yi mom sang bu tedd bi rasulullah alayhi salaam daf ko may ci njabootam ñaar daf ko may yàlla yi mu joxaat ko keneen mm-hmm. waaw ñaari yoon la ko may doomu mm-hmm. moom ne nañ moo daan yëglu rek mm-hmm. mu mel ni sang bi dafa daan mel ni kuy kuy defaraat toogaay yi xam nga toogaayam masula doyee di yaramam du fee uh-huh. du toog ci posture bu mu warul a toog mais dégg naa bu Ousmane Masé yëglu dafay mel ni kuy waaw ndax amoon ndax kersa bu mu amoon ci moom. waaw ndax warma bi moo dayoon noonu. Ousmane it xam nañ li mu liggéey ci alxuraan. Mm-hmm. ndax mu mel na ni moo ko tëgg. Mm-hmm. waaw wàccul ci dënnam ci dënnu sang bu tedd bi la wàcc. Mm-hmm. waaye moom moo ko dajale. ci format bi ñu xam tey. ci jamono di ko jàngi alxuraan ci nii ñu ko xamee. kon euh, yal yàlla. def ci ci barke lu wees jort yi. Mhm. ci ci barke sàng bu tedd ci barke turandoom boobu. moom Ousmane Bula Fall. amiin fekkee ko tal ko yàlla def ci xéwal. amiin weesu jort yi. Mhm. suñu neuf août ñun ñëpp la. incha allah neuf la dañuy ah. dem ca Rumde. Ah, ca ca ziyaara annuel ba man moom xam naa ne moom émergé doyen rakki. ñu ñëpp ay dem borom gétt yi <laughs> naan ci soow yi vraiment barkeelu ci <laughs> mu nekk lu am solo di la jaajëfal bu baax a baax mm-hmm. euh, sëñ Aliou Sow euh, di la jaajëfal ci ñëw bi également liñ fa am na solo bu baax a baax mm-hmm. ziyaara annuelle boobu tamit di leen ci ñaanal rek ñu yegg ci ci jàmm mm-hmm. en tout cas lépp li ngeen ci séentu yàlla defal leen ko nga également barkeel euh, gën a barkeel liggéey bi tamit ñoom ñu ko mën a waxee vraiment tey lan ngay tàggatoo kontaan nañ bu baax a baax. waaw jërëjëf euh, xanaa rek euh, tàggatoo bu dul tàggatoo. Mm-hmm. yal nañu yàlla may fekkiwaat ko. waaye tamit di ñaanal ñëpp jàmm. Mm-hmm. yal na fi yàlla def jàmm. bi jaaxi Seydina Muhammad ndaxte jàmm ci la lépp xaj. Mm-hmm. jàmm boo amul jàkk sax duñ fa dem. xoon jàmm lépp lu ñuy laaj ñaan nañu ñaan jàmm. waaye di woo ñëpp ci ziara bi. ndaxte ziara bi du ziara ruum de kese. jullitu yàlla yépp ñoo ko moom parce que li tax xeet yooyu ndaje bu yu mel noonu mooy jox ko mbokk la mm-hmm. xoon tabaarakallaahu ñu ngi ci woo ñëpp ci kaddu jamaatu ahbaabu Seydi Alfa Ousmane ci membre yëpp ñu ngi ci dalal ñëpp tabaarakallaahu mm-hmm. euh, di leen jaajëfal di kontaan ci yéen bu baax di ñaanal site bi yal na ko yàlla def mu dem ba nekk télé insha allah te yàlla mën na ko mm-hmm. Euh, li ci des tabarakallah kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a allah amiin ñoo gëna a merci beaucoup euh, en tout cas Serigne Aliou Sow euh, kontaan nañ bu baax a baax merci beaucoup MAG on se mhm. rendez-vous jeudi. ci benen rubrique société. Mhm. wa di nuyu bu baax a baax sunu invité bi di ñaan yalla suñu borom rek mu yóbbu ñu ci bëss bi. di jaajeufal bu baax a baax téléspectateur TSTV Teranga Sénégal di leen jaajeufal bu baax a baax di nuyu sama sama copain ma ndax bu may duñ <laughs> di nuyu bu a baax sunu sister rek di nuyu bu technicien régie ah, di ñaan sunu borom rek euh, mu may ñu defal ko kër gi defal ko Sénégal defal ko ñëpp euh, di leen jox dig jeudi inchallah rabbi ci euh, thème de société mm. di la bu baax yow di nuyu bu madame gay di nuyu taaw bu goor bi Serigne Babacar si di nuyu bu baax a baax a baax képp ku ñu doon seetaan jërë ngeen jëf. Serigne Babacar si mu ndaw ñu ngi koy nuyu suñu doom jooju merci beaucoup Racky on se donne rendez-vous demain ci beneen euh, numéro journal ak euh, revue des titres. incha allah Jeannette merci beaucoup à toi aussi merci euh, ñi ma ñu ñu bokkaloon plateau bi yëpp également merci à nos très chers téléspectateurs merci merci ñëpp ñi nga xamante ne ni ñoo xare woon si xarala yi di leen jox également rendez-vous demain incha allah. Rendez-vous demain. Merci, Doyen. On se retrouve demain, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Euh, demain. Et encore une fois, ñaan nañu yàlla yóbbu ci bés bi ak jàmm fekke tante Amin. barke. amiin en tout cas mu merci beaucoup à vous chers téléspectateurs mu ngi noonu euh, matinal bi euh, tire à sa fin de leen jox rendez-vous rek euh, suba ci beneen numéro Teranga suba teel di remercier di jaajëfal bu la partie technique à la régie Moussa moo fa fare son bi DJ Maxime ci cadrage bi amoon nañu Leyti Papa Sow madame Diawara Soxna moom nag merci beaucoup à elle <laughs> di remercier vraiment euh, tous nos téléspectateurs donc euh, le programme se poursuit euh, donc après juste la matinale di ngeen am émission lu ko waral ak Adama Kanté mu ngi noonu journal bi na 12h30 15h 16h30 Sénégal Tour le soir 18h 20h di ngeen am édition du soir mu ngi noonu rester scotché euh, sur euh, les programmes de la TSTV. On se donne rendez-vous demain. Merci beaucoup et bonne suite de programmes sur la TSTV Teranga Sénégal. partout Sénégal